pele yoo de jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare comme ni lañ leen ko waxee tey ji ñu ngi file ci Bargny ci tiis bi nga xamante ni moo dal ci seen i ay njaboot loolu moo tax rek ñu ñëw fi ngir jaale leen waaye tamit ñu laaj leen ay information ci xibaar boobu rek naka la ñu ko yégee kilifa gi ñu toogal nii nag ndekk koo xamante ni kenn la ci famille bi dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñooy seetaan site bi di wasaare bu ko defee ñu dugg ci waxtaan gi ñu ngi lay ngi leen di fay bu baax wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi tudd maa ngi tudd Cheikh Tidiane Sy Ndour may mm, rakku Khalifa Babacar Ndour moom la njabootam tiis bi daal si kawam waaw. Cheikh Tidiane Ndour gannaaw ba ñu la jaalee njaboot yi nga xamante ni ñoom ñoo joge woon file ci seen kër mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir mi rek exactement naka la deme mm-hmm. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax mbir mi moom ni mu demee euh, mën na yéem ku dëkkul Bargny mais du yéem ñëpp waaw kii suma mag la moom mu ngi liggéey labo la nekk hôpital yu Mbargane waaw mais xam nga sëy fii li xew ni phénomène la boo xamante ni yàlla daal moo xam jaaxal nañu ba jaax bu fu jaaxale yem ñun ñëpp dañoo jaaxle dëkk bi yëpp dañoo jaaxle waaw da ngay ñëw doo gis sa doom da koy ragale laajte mais du kenn kuy permettre doomam mu dem si li ma xam waaw mais nag xam nga bu fekkee ne sa njaboot dafay dem yëguloo ko ñu woo la ne mu woo la ne la maa ngi Espagne pour wut lu mu la dimbalee da ngay sant yàlla rek mais bu fekkee dem gi la moom du kenn kuy jël njabootam di ko paasal surtout jigéen pour mu dem Espagne mbaa mu jaar si gaal yi. ak ku xam géej ni mu mel jigéen ju masul sangu géej sax di dugg si gaal di dem Espagne ngoon am na lu xew. Mhm. papa ndax mën nga ñëwalaatal waaw famille Ndourène bi ñaari jigéen la Alimatu euh, Adama nduur la Ali ñu koy wax Adama nduur ak rakkam bu ñuy wax Awa Ndiaye muy Awa nduur ñoom ñaar ñoo fi jóge woon di dem. kon mën nga ñu xam ay at seeni at ci ñaata rek la toll. Euh, dina jafe mais euh, Adama bu judduwul 94 juddu 93 te kii tofam la. Mhm. déedéet kenn amu ci borom kër te Adama mu ngi doon liggéey mu ngi doon liggéey mu ngi doon liggéey Dakar. waa service am léegi lañ fi jóge sax doon jaal si indi ñëw nañ fa bi indi fi seen jaal ñu gërëm leen sant leen delloo leen seen jaal ñoom it waaw. ndax ñoom ñaar ñooñu nga xamante ne ay jigéen lañ bi ñuy dem jot nañu waxtaan ak seen famille wala dañu jékki-jékki rek ñoom demee. déedéet ñun man mii de man mii de maay rek papam mais bi catastrophe bi amee laa ko yëg bi ma waxee papam def na ma yëgu ko daa yëg ne dem nañ mu ñaanal leen waaw mais si catastrophe bii man si laa yëgee ni dem nañ xam naa papaam dafa tiit ba daf ko doon nëbb waaw mais du moom rek ñi dem bari na lool lool lool lool te kenn yëgu leen waaw. naka rek ngeen yëge euh, tiis bi nga xamante ni rek moo daal di ñëw rek wàcc ci seen kaw. waaw bi xam nga comme ñi la amee am na ay waa Bargny ñoo xamante ni ñi ñu ngi woon ci gaal bi ay respect ñooñu deewuñu dara dalu leen ñooñu ñoo envoyé wax ni gannaaw bi ministre bi tax wi annoncé ne am na treize cadavres. ñu ngi leen di suul fii c'est la ñu am ñu nekk foofu ne nañ dañoo làqatu sax pour woote pour def audio wax ne xale yi ñàkk nañ seen bakkan waaw ñun mënuñu lu constater li la fa ñu def li ñu war waaw noonu la demee. ndax ñoom ñaari xale yooyu dañ leen a mujjee denc foofu bokk ci ñoom. waaw dañ leen denc foofu dañ leen denc foofu ci Mauritanie lañ leen denc mais dégg naa kii romb nii naan am na ko ñëw démb. def naa ñi si des ñëw nañu biig parce que bar ñi dafa dépp dafa def sacrifice moom moo dem yóbbu ñaari bus la fret pour jël ñi dëkk bar Bargny la doon jëli rescapé yi mais il pare que ñëpp ñi dëkk si zone bii jëm kabeer vert ñëpp la mu si mën a yëpp yëpp na leen ba ñëw nañu biig mais ñun gisaguñu kenn waaw gisuweeñu kenn ku ñëw. d'accord yan kàddu yu rek nga ñu mën a jox ci ñaari xele yooyu tey nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeekoo. baax lool ki ci mag. ren jii papaam nee na ma moom moo ko jëndal xar parce que dañoo ànd ba ca daral ba papaam di tànn xar bu mu tànn mu ne ko bii dafa tuuti bu mu bu mu tànn rek mu ne ko bii dafa tuuti bu yàgg mu ne ko papa nañ jël bii papaam nag est ce que xam nga lu nekk sama poos mu ne ko waxaale ko rek bi mu waxaalee ba bëgg fay moom mun ne ko man maa koy fay mu defal ko papaam te it lu mu mës a am yaayam ak papaam la ko defal mais amul woon benn sarge familiale amu ko moom mooy def de son propre gré. parce que papam boo ñëwee si kër gi nii xam nga ne fii kër ki moom kër gi vraiment warul ñàkk lu mu dundale njabootam surtout ñaari doom yu jigéen yu amul jëkkër amuñu responsabilité keneen ki aussi UCG la nekkoon waaye UCG am na ñu fi ñëw sànq ñeneen ñi wax na ñu ngi ñëw waaw ngoon mënuñu lu dul ñaanal leen yàlla seen mébét li ñu yéen seen papa yàlla dimbali leen ba ñu mën ko yeggale waaw. gis waaw xam nga xale yi neexuñoo conseiller neexuñoo conseiller ñun état bi lañuy ñaan pour mu jàppali ñu jàppale ñu parce que xale yi neexuñoo conseiller parce que da ngay nekk fii di liggéey ak sa morom gën ko doon jàmbaar sonn lool ci li ngay liggéey ngeen bokk di liggéey ay jamono mu dem ñu ne mu ngi Espagne ñi dem daaw li ñu def ren li ñu réaliser ren loolu mën na ab mën na sax euh, yokk xale yi fit waaw parce que ñi demoon daaw li ñu réalisé di téléphoné di wax ne fii Eldorado la moo tax xale yëpp jóg dem mais ñun état bi la ñuy ñaan soxlaw ñu njaal soxlaw ñu ndimbal dañuy ñaan daal pour ñu gën ñu mën a sécuriser suñu doom yi parce que ñoom dong lañu am fi mu nekk nii géej pour nga am fa jën problème lay doon parce que amul gaal guy dem géej parce que gaal suñu gaal yii bu ciy dem géej di nga yóbbu um, pour am euh, nit ñu doy minimum bi soixante personnes dina ko yëpp pour ñuy xëcc mbaal bi parce que mbaal yi dafa dafa dafa rëy dafa bari doole waaw léegi nag pour ay xale yi nekk fi di ko xëcc te xale yi bu ñu demee fi mu nekk nii ñun problème la ñu am te xale yi koo si wax mu ne géej gi dara nekkut fi waaw loolu mooy suñu problème ñun daal ñu ngi ñaan yàlla euh, état bi jéem ñu yokk bokk yokk ñoo jàppale amaana mu ngi jàppale mais su ñun doyul mu yokk ñoo jàppale parce que nit bu sa doom ne mu ngi dem mu wóor leen fa mu dem ña demoon dañoo tekki di nga tiit mais bu yeggee nga sant yàlla di ñaan yàlla yàlla jàppale ko euh, xéewale ko ba mu mën a ñëw teral la waaw. Papa jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la mosaw aussi li nga xam ne moo dal ci seen kaw. jaageen jëf yal na yàlla fay leen yal na yàlla yokk leen yal yàlla sàmm leen yal na yàlla aaral leen boppam jaageen jëf.